www.sangatv.com xam nga fu ñu jëm taximaan yi ci boppam ñoo grève te lu tax taximaan yi grève nañu seeti taximaan yi dañoo grève lu tax ñu grève moom la ñuy dem xooli ñu xooli chauffeur taximaan yi seen problème lan la ak kan moo mën a régler problème taximaan Mbay Jóob Mbay man direction des laa jugee direction de mines laa jugee rang ba ca boppam kenn mu la ko wax fii ñuy yaraax fi ñuy seetee oto yi service des mines fi ñuy seete oto yi mooy fi ñuy passé kii passé mais loolu dama ne man depuis ñetti fan versé wu ma sama patron may yuuxu naan ma waaw xotol li jàppal bàyyi xëy ngay dem 6 heures de matin lu toll na Sénégal ñu doon Sénégal émergent mu am benn place boo xam ne fa loolu dafa ñaaw waroon nañ def benn jam Diamniadio def benn Pikine def fii benn Dakar et puis licence yi dañu ci somal. non taxi moom fi mu ne nii moom Dakar moom. Ah. a ah. dama ne embouteillage bi embouteillage bi da jël client jëlee ko Sandaga war ko yóbbu HLM. billahi day mel ne Dakar Kaolack. da ngay lakk essence particulier yi duñ la may nga jàll client yi dañuy taxaw di kaas mais dëgg man daal wax dëgg yàlla. maa ngi yëpp keroog benn ñaari client laa yëpp benn homme de tenue ak benn femme femme bi nekk yorul paas daw daw sama xel daal ma ah, topp femme bi ne femme bi looy taxaw dawal man mi sax yoruma paas dama mel ne ku lay rek ñoom ñaar ñu mel ne kuy dàqante noonu laa ko ñàkkee non lu bëri ko boo sa faux homme de la parce que un vrai homme de tenue di loolu man moom tenue la war nañ cee wax parce que léegi waa ah, déglu ma tenue yi si boppam war nañ cee wax ah, tenue ASP yi dafay nuroog tenue policier yi dañu war a changer tenue yi ñu la kii parce que guddi gi da gis sax ab hasard di la arrêté di la laaj pièce ndax dootoo xamati hasard ak policier tenue yi war nañ ko réglementer waaw non man problème yi ñu am ci taximaan moom wax dëgg yàlla bu dee Sénégal nii lay demee moom koy bàyyi. man maa ngi jëli sama ba pare nañ ñu jox nag ay quota aéroport aéroport dañ fa a jox ay quota taal lamp yi ñu xam fu ñu dawal autoroute bi maar day taal lamp yi dafa lëndëm waaw baax na waaye man maa ngi gontu nii na maa ngi dem garage waalo jërëjëf waay xaaral ma raxas ay eh, booy aada raxas nga bi waaw baax na xaaral ma uti client waaw kay bàyyi ma uti client bismillahi rahmaani rahim yàlla ma yàlla teg ci yoonu jàmm fi kulli maa kulli fi kulli abadan fi kulli maa kulli fi kulli abadan fi kulli maa kulli fi kulli abadan bisimilaay taxi taxi waaw kooku waaw client na nga def ça va sëñ bi ça va sëgal yaa ngi si jàmm déggum lay wax sëgal ça va waaw parcelle laa bëgg a dem parcelle waaw ñaata nga amal ban unité unité 6 laa jëm unité 6 waaw ñaata la ah fii ñu nekk de ñu ngi Patte d'Oie fii ak unité boo joxee 2000 ma jooy bu la. ah 2000 dafa bëri. ñaata nga mën doom. 1000 francs baaxul. ay góor gi soxna si tamit embouteillage bi poids bi ah, balaa nga koy wàcc dem problème. Ah, papa yow nag 1000 yaa ngi commencé 1000 francs naan 800. francs yi nga wax sa arrangé ma boo ci tegee dara ma defal non non 1000 francs laa am yow nag jàpp si rek. fan nga jëm ci parce que ba suuf. non bëriwul suuf. du ko ñu doo ma wàcc loolu suuf si de. côté kër amadu Bala mais doo dugg foofu. ah waa d' accord kon yëgal yëgal yëgal waa dellu dëkk bi neexul doom xam nga waxaale bi dafa metti soxna si nga baal ma de ma sa poudre yooyu nga bañ a yàq taxi bi ci ginnaaw ndax clients yi des fois dañuy dugg mu taq dégg ma ma ne sa poudre boobu ngay poudre laa wax nga xool chaise bi ndax dafay am client yokk yu ciy toog xanaa fayatu ba sama paas xanaa waxaale ko xanaa waxaale de kon wax ji day mën a neex rek xoolal waaye xoolal kii nag du ma may nii nii lay def rek waa Diop ça va. wóoy ma def ma neex sax laay toog. kay boo xasee ba dugg fa la neex ngay toog kenn teerewul ko waaye puudar boobu ma la bañ a tax rek. poudre bi daal fi mu ne nii damaa fay sama paas te fu ma neex la nu ma neex nag laa ci toogee yoon bi ma jaarloo nii sama su ma sañoon du ma jël lii yoon embouteillage bu metti bi yow daal yem nga ba pare yóbbu ma rek ba fi ma jëm doom jur naa la toll na yow de xoolal ni ngay wax ak man paa nag da nga may yóbbu ba fu ma jëm ndax maa fay taxi bi baa ma jàpp wax sa xalaat man am na yoo xam ne taluma xuloo ban wax sa xalaat paa man déglu ma lool de RFM laay déglu boo ko mënee ah, jàpp nga jàpp ko seen TV laa jàpp moo ma neex paa man RFM laay déglu Zik FM laay jàpp fii nag maa fi chef ba keroog may wàcc RFM laa bëgg boo xuloo ko baax na pourtant jur naa la ton na yow de kër ga la neexee de paa amoo birike loo koy doyee damay taal sama cigarette bi xaaral may moo fare da nga dalal tox damay wàccal man du diggéen wàcc sama oto dama am asma paa dama amee taximaan nga xanaa yow nekkatoo taximaan doomu ma ne taximaan la dama am asma doo mais yow xanaa bàyyi woo jigéen sa kër bàyyi jigéen day tax nga dugg si oto bi toog si kër ma ne eh, ma boo amee briquet nga abal ma boo amul man maay sa morom ba nga naan boo amee briquet bu dee loolu moom wàccal wàccal boo naree gàddu àq laa wax wàccal baax na waaw l'essentiel daal la xam naa ne moom boo bàyyi woon jigéen sa kër du nii ngay comporter ah, ba tey su ma xamoon ne nii nga mel duma ma la sax yet da ngeen di neexal baat ba dugg ba pare commencé teg bi ngay waxaar ak man waxoo woon nii de man daal sama xaalis laa fay nu ma neexee ñaar téeméer bi su da nga yokk rajo bi tuuti RFM la déglu ñu waaw ah, man du ma jàpp RFM si ma neex dégg ma ma ne si ma neex si FM laay déglu tës en tout cas daal xam naa ne moom dëkk bi metti na fii daal kenn mënta am jàmm yow daal nit day fay paasam ba pare toog ci taxi bi ñu koy eh, wan eh, doo ma rey wax de doo ma reen wax. coono na damaa fay sama xaalis. paa damaa fay sama xaalis. dafa nànk da nga may yóbbu ba fi ma jëm. te indécis laa jëm ci koñ bi ma jëm dafa am suuf ci biir foofu nga may duggal ndax dama laa fay. bu dee loola nga wàcc. wàcc ah wàccal. wàcc ah déedéet yow tamit déedéet wàccal. déedéet déedéet doo ma rey xuloo fekk ma jàpp Zik FM nga ne ma RFM ngay déglu ñu ne déet na waaye ngay taal sa cigarette ñu ne déet na waaye ngay taal sa ngay def wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal waaw ah, wuy man ak yow tamit xanaa bàyyi woo jigéen sa kër dama man jigéen du ma jaay reewande wàccal waaye ma duraat ah, baax nag yow tamit nag xanaa bàyyi woo jigéen sa kër maa ngi jégalu maa ngi jégalu nag yow tamit yaay sama góor foo ma wax ak yow ba pare waaw waxal ak man ma dégg la yaa may dégg mhm. soxna si mhm. bu leen jàppee taximaan ay dof mhm. rawatina chauffeur yi boo leen di dugg si neexal baat ba ñu yëpp leen boo leen xase ba toog di def lu neex loolu du yoon bàyyi sa kër bu dee am nga papa mën naa la bàyyi wala ma mën la di jaay ñun li ñuy daj ci télé bi mënuñu ko wax dañuy forcer versement dix mille francs par jour dañuy dugg ko daanu xoolal bi ma jëlee ba léegi ak suñu xulo bi bougé wu ma met fi ma taxaw laa taxaw. yaa may dégg. boo xëyee nag bëgg maa indi problème ana jigéen ak dugg di tux cigarette loolu respecté woo ma sax. ñaareel bi nga jël poudre bii nga xam nga moom nga def sa morom a fi dugg toog ku sol lu weex bu fi yéegee nga taxal ko nag. loolu bokk ci ñetteel bi yaa ngi may duggloo koñ ne koñ suuf la te pourtant jigéen ci boppam dafa war a respecter chauffeur ndax ku ci ëmb maara tey euh, euh, di di di matu lay yóbbu chauffeur lay jëli ku ci am néew chauffeur lay yóbbu chauffeur lay jëli taximaan yi du ñu waxee prix c'est parce que prix boobu moo normal waaye xoolal fi ma la jëlee ak fi ma ñëw nga fay ma ñaar téeméeri dërëm ah ñun dañoo am ay soxla war leen a dundal dañoo am ay patron war leen a verser dëgg la am na loo xam ne nag ci yar nga koy mën a amee dëgg la bu fekkee dañuy génn ñu ñuy sonal dañuy def yenn yi client dañuy sonal ñun métier ñu ciy jégalu. yaa li nga wax yëpp dëgg la. d' accord maa ngi jégalu d' accord naa léegi ay xarit lañu xanaa. waaw jigéen nag bu bëggee jur lu baax ngay bàyyi tox bi dégg dinaa ko la dinaa ko bàyyi. waa rajo bi ma waaw la rek waaw King FM moom mu koy toj ana gune gi jàll yoroo numéro gune gi jàll xanaa Pape Cheikh. kooku koy Pape dinaa la ko lijjanti. King Feeling voilà. voilà voilà kay ah. jërëjëf waaw xaaral ñu wàcc fii fii ngay wàcc yow da xam naa yaay doon sama dernier client fii ngay wàcc ah baax nag wàcc ñu ànd ah. da ngaa da ngaa jongo ma sax yow ñu xaw a lekk madame nan la madame ma nekkuma aw ma kenn amoo kenn may ma duraate da ngaa tasanteeg kàccoor du taxi du taximaan yëpp nag waaye da ngaa tasanteeg pas kàccoor wàccal wàccal wàccal nànk am na dibiteri boo xam ne saa yi ma versé fa laay lekk. fan la ci fee nee dibiteri bee. taxi ma yàpp dama fay longu ma longu ma déedéet longu ma. ah paa yow tamit nag. longu ma waala bëgg wa naan naa xale bu nooy. longu ma waaye nooju ma waay nooju ma waaye ma waaye waaye seere ma kott ma waaye muucu ma. <laughs>